di am di am mbégte teew ci plateau bi pour la pour la première fois. merci di am euh, kontaante gis dynamisme bi fraîcheur bi ci matinal bi. jërëjëf donc euh, te nga bàyyi di wax sama sër Doli Ndar la du Doli Ndar. vrai vrai vrai doomu Ndar la. mais sax nga de macha allah. merci beaucoup xanaa li da nga ubbi rek mu daanu. non affaire doomu Ndar la rek. ah doomu Ndar la xam nga xam nga yaa ngi wax Oscar de Vacances ñun xamuñu loolu doomu Ndar. ah ñun da ngay judd diggante. boo gënoo suñu doonee diggante Akuraan Massoum Diop. d' accord ak Akuraan Serigne Sow. ak taaxal defe ñun yooyu lañ xam. tey moo tax xamuñu ay Oscar Debatis. <laughs> mais xam ngeen Harmattan. benn Mamina Diémé. non xamuñu yooyu. d' <laughs> accord keroog mais di di am plaisir teew fii. merci bu ma xoolee actualité bi li may inspiré mooy mooy tristesse su ma nee mooy tiis parce que euh, deuxième alternance sept ans après. ñu toog tey amuñu lu ñuy wax lu dul euh, troisième mandat. l'attaque des biens mal acquis parce que Sori Ka euh, Sori Kaba Moustapha Ka li ñu ko dàqee yeneen deux conseils yi mooy affaire Karim Wade attaque des biens mal acquis mm-hmm. mooy li Macky Sall commencé mandat mm-hmm. troisième mandat Macky après sept ans de pouvoir bu ñu demee ba Sénégal président boo waxee nit ñi mënuñu takk téye c'est qu'il y a problème Macky Sall wax na plusieurs fois ne moom bii mooy dernier mandat mais ba tey nit ñi gëmuñu ko mm-hmm. parce que li mu waxoon ne moom et puis jot na Sénégal ñu interroger suñu rapport au temps suñu rapport au travail suñu rapport au progrès est-ce qu'on a évolué mm-hmm. est-ce que après sept ans d'exercice d'un mandat wala ñu toogaat troisième mandat mm-hmm. alors que on actuellement parler de rentrée on aurait dû parler des problèmes des Sénégalais. on aurait pu des parler inondations. des inondations. on aurait pu mm-hmm. parler terre bi demagul. on aurait pu parler. des abris provisoires ainsi de suite ainsi de suite. tout à fait mais chaque fois politique. lan nga jàpp ne moom moo ko waral moo koy lal en général. li ko waral mooy que dañuy bëgg alternance te duñu réfléchir lan mooy vrai changement lan mooy vraie mutation. et je pense que tey dama lay jox benn exemple euh, bu ñu toogee ñu inauguré Maslakul Jinaan oui mu nekk lu rëy ci Sénégalais yëpp. Mm-hmm. di mbégte bu rëy. tout à fait tey nga xool li jëf jooju toll. nga xool suñu mbokk murid yi pareeguñ sax engagé nañu encore beneen chantier de 37 milliards muy université xaalisu jàmbur dugg si xaalisu tubaab dugg si xaalisu kenn dugg si mhm. seen xaalis ñoo ko tabax seen bopp maslakul jinaan ñoo ne la boo ko xoolee boo xool milliards la coûté est ce que yow nga nangu si sa bopp ne maslakul jinaan mën na coûté milliards réfection building administratif di coûté ah. ni mu toll ni mu rëyee gis nga chantier bi en moins de 6 mois ñu jëkkati ko 38 milliards ñu ne centre conférence Abdou Diouf ça a coûté cinquante milliards xam nga loolu mu mënoo ko nangu ñu ne le cent trente dix-huit autopont à Dakar. oui ça va coûter cent trente milliards donc le le le petit pont va coûter trois milliards. oui c'est-à-dire euh, dafa ñu toog commencé wu poser wu les les bonnes questions. mënuñu am dans notre pays un modèle achevé comme les mu nekk seetu bu ñu war a xool. Ah. et de notre côté politique qui fait du n'importe quoi. su ma liree le professeur Moustapha Kassé mu bind le Sénégal est malade de ses dama ko gëm. dëgg il est temps qu'on se pose les bonnes questions. c'est pertinent hein. c'est c'est